di sant di sant di gërëm bu baax ñaan bu baax a baax a baax amul sax borom amin amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke waaye tey gën naa ko moom gën naa ko so moo tax ma ne la ñëwal léegi dafa am barkeel bu ma lay jox nga joxal ma ko ñu jëm si waaw tey sëñ Muntaxa yónnee laa ilaaha illallah macha allah. laa ilaaha illallah. Sëriñ Muntaxa moo jox li Aziz Ndiaye. laa ilaaha illallah. ak sijaada. lii. maamun loo yëng ni. Sëriñ Muntaxa moo yónnee lii jox ko Aziz Ndiaye. gën naa soñ Abdoul Aziz ci jaamu yàlla ak julli. billaahi billaahi laa ilaha yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 1958. laa ilaha illallah. daa wuyu rek la maama bindoon ci razaq ni xajja tayyan anta muqtadiru. laa ilaha illallah. bu bi nag alquranul karim jox ko ko kon Cheikh Mouhamadou Mountakha tey béyalaat nga xol yi ci li mu